sëriñ ibrahima buso sëriñ ibrahima buso mu ngi feeñ jamono ci atum 1870 ci suuf sii nag di saalum ci dëkk bu ñuy wax naawel moom sëriñ ibrahima buso nag di doomu soxna mati ñang ak ku ñuy wax sëriñ mbusoobe buso am na nag ñum bokkal nag soxna mati ñang ak sëriñ mbusoobe buso ñu man caa ràññee nag soxna awa buso bintu soxna mati ñang bintu sëriñ mbusoobe buso ak ku ñuy wax sëriñ aafiya buso ibnu soxna mati ñang ibnu sëriñ mbusoobe buso ak moom sëriñ ibrahima buso ibnu soxna mati ñang ibnu sëriñ mbusoo Kebe Bousso ñaar nag la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor laataa ñuy wéy sax ci mbirum sëriñ Ibrahima Bousso mi moom sëriñ Mbusoobe Bousso ak soxna Mati Ñang ñu wax leen nag njaboot gi mu bokkal soxna Mati Ñang ak sëriñ Mbusoobe Bousso nag ñoom ñooy ñan soxna Awa Bousso moom soxna Mati Ñang moom sëriñ Mbusoobe Bousso bi mu matee dem kër ci dëkk bale nag di aafe jolof nag lañ ko yóbbu woon boole ko fa ku ñuy wax sëriñ Abdu Kumbaan Mbàkke Ñang mook sëriñ Abdu Kumbaan Mbàkke Ñang nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee sëriñ Aafiya Ñang mi meññ nag sëriñ Moodu nekkoon secrétaire u sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ginnaaw bu soxna Awa Buso nag jógee nag ci loxoy sëriñ Abdu Kumbaan Mbàkke ñang lañ ko jébbaloon nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim mook sëriñ Touba Seexul Xaddiim nag am nañ ak njaboot ñu ma Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke soxna Mareema Kunta Mbàkke ak soxna Maam Faati Mbàkke ñaareelu doomu soxna Mati Ñang ak sëriñ Busoobe Busoo mooy ku ñuy wax sëriñ Aafiye Buso moo sanc nag fii ñuy wax nag barab bi nag ci Touba seen rakk ja nag di sëriñ Ibrahima Buso moom nag lañ fa séenee waxtaane dalal alxuraanul karim nag waajuram sëriñ bu soobe bu sa nag moo ko dalal alxuraanul karim ci loxoy sëriñ bu soobe bu sa la wéy nekk ba ni waajuram wa nag génnee àdduna magam ja nag soxna awa busoo moo ko jébbal nag sëriñ ndaam abdourahmaan loo ngir nag sëriñ ibrahima bu sa nag wéel am njàngam ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag la mokkale alxuraanul karim bi mu matee jàng xam-xam nag magam sëriñ mbàkke bu sa itim nag jàngal na ko ak yeneeni bërëbi bi seexul xaddim nag jógee ci géej gi nag ba dem gànnaar sëriñ ibrahima bu sa demoon na gànnaar itam nag fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw gànnaar itam nag ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam nag daana fa fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul njaareem itam nag kasaalika bi mu matee taxawal kër nag lañ ko boolee doomu soxna ja Turé ja ak sëriñ Mbàkke soxna sëriñ Ibrahima Buso nag mook soxna Xarija Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Xari Buso sëriñ Abdu Xari Buso sëriñ Moodu Xari Buso mu ndaw sëriñ Ahmadu Xari Buso ak sëriñ Yaxya Xari Buso ginnaaw soxna Xarija Buso sëriñ Ibrahima Buso itam nag dëkk jokkoo woon naag beneen soxna ñuy wax soxna Aysatu Kan mook soxna Aysatu Kan nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag kam faye woon magam ja nag sëriñ Mbàkke Buso ak kam faye woon nam ba soxna Mariyaama Asu Buso ak ku ñuy wax soxna Aminta Buso sëriñ Ibrahima Buso itam nag yoraatoon na beneen soxna bu ñuy wax nag soxna Buso Jigal mook soxna Buso Jigal nag am nañ ak njaboota ñi mënoon caa ràññee nag sëriñ Afiya Buso ak soxna Aminta Buso waaye sëriñ Afiya Buso mi mook soxna Aminta Buso nag gudd ñu aw fan njabootug soxna Buso Jigal ak sëriñ Ibrahima ñu lañ moom sëriñ Ibrahima Bousso nag yoraatoon na baneen soxna bu ñuy wax soxna faati ñang mook soxna faati ñang nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax sëriñ El Hadji Bousso Tamba soxna yi nag la sëriñ Ibrahima Bousso dëkkoo woon njaboot gi itam nag la ci am ngir xamale lee nag njabootuk sëriñ Ibrahima Bousso nag ñoom ñooy ñan doomam ji nag di sëriñ Modou Xari Bousso di ab taawam moo meññ ku ñuy wax soxna faati xadi Bousso soxna faati xadi Bousso nag bi matee dem kër sëriñ Abdul Wudoon Mbàkke moom sëriñ Modou Farmata Mbàkke moom sëriñ Afia Mbàkke nag lañ ko jébbaloon ba na soxna faati Khady Bousso mook sëriñ Abdul Wudood Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Afiya Mbàkke ginnaaw bu mu jugee nag ci loxoy sëriñ Abdul Wudood Mbàkke moom sëriñ Moodu Farmata Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Njoogu Mbàkke mi yoroon barabu ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul soxna Faati Khady Bousso moom sëriñ Moodu Xari Bousso moom sëriñ Ibrahima Bousso mook sëriñ Njoogu Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee soxna Ami Mbàkke Jobbe ak sëriñ Babacar Mbàkke ñaareelu doomu sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Mbusoobe Bousso mooy ku ñuy wax sëriñ Abdu Xari Bousso njaboot njabootuk sëriñ Abdou Khari Bousso ñu mën cee ràññe sëriñ El Hadji Bousso mi toog toogaayu sëriñ Ibrahima Bousso sëriñ Fallou Bousso sëriñ Ibrahima Bousso sëriñ Abdou Khader Bousso sëriñ Abdoul Ahad Bousso soxna Fatija Bousso soxna Xarija Bousso soxna Maam Pinta Bousso ak soxna Maam Jeng Bousso ak seeni rakk ñetteelu doomu sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Bousso be Bousso mooy ku ñuy wax sëriñ Modou Khari Bousso mu ndaw njabootuk sëriñ Modou Khari Bousso mu ndaw ñu mën cee ràññe maam sëriñ Bousso be Bousso sëriñ Modou Anta Bousso soxna maam faati soodaloo busoo ak seeni rakk ñeenteelu doomu sëriñ ibrahima buso moom sëriñ busoo be busoo mooy ku ñuy wax sëriñ ahmadu xari buso njabootuk sëriñ ahmadu xari buso nag ñu mën cee ràññee sëriñ jiili buso sëriñ mustapha buso sëriñ moodu maamun buso maam jaara buso maam mati buso maam anta buso ak seeni rakk juróomeelu doomu sëriñ ibrahima buso moom sëriñ busoo be buso mooy ku ñuy wax sëriñ yaxyaa xari buso njabootuk sëriñ yaxyaa xari buso ñu mën cee Bousso sëriñ Fàllu Bousso sëriñ Moodu Maamun Bousso sëriñ maam Moor Bousso soxna maam Awa Bousso soxna maam Faati Bousso soxna maam Ja Bousso ak seeni rakk juróom benneelu doomu sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Bousso be Bousso mooy ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Bousso di kam fayam magam ja nag sëriñ Mbàkke Bousso njabootug sëriñ Mbàkke Bousso moom sëriñ Ibrahima Bousso nag moom sëriñ Bousso be Bousso ñu man cee ràññee ku ñuy wax Cheikh Abdou Bousso mi ngi faye sëriñ Touba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke sëriñ Fàllu Bousso doom nag bu mu fayee cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ moodu busa jëng buso soxna may buso soxna sayna bu buso soxna maam awa buso ak soxna mbeen buso ak seeni rakk juróom-ñaareelu doomu sëriñ ibrahima buso moom sëriñ buso bi buso mooy ku ñuy wax sëriñ elaaji buso tàmba njabootuk sëriñ elaaji buso tàmba moom sëriñ ibrahima buso ñu mën cee ràññe sëriñ fàllu buso tàmba sëriñ abo buso sëriñ moodu xayra buso sëriñ abdulahat buso soxna assa buso sëriñ xalil buso sëriñ abdulahat buso moom soxna moomi sëriñ ibrahima buso sëriñ murtada buso soxna sarax buso soxna awa buso soxna maam ami kolle buso ak seeni rakk doomam ji ñuy wax sëriñ aafiye buso moom sëriñ ibrahima buso moom sëriñ buso be buso bàyyiwu fi nag ak njaboota laata muy amul njaboot nag wujj na suñu boroom ak doomam ji nag ñuy wax soxna aminte buso di ñaareelu doomu soxna aminte busaam moom sëriñ ibrahima buso moom sëriñ buso be buso itam nag bàyyiwu fi ak njaboota laataa muy dem kër génn na àdduna juróom ñetteelu doomu sëriñ ibrahima buso sëriñ Bousso be Bousso mooy ku ñuy wax soxna faati xari Bousso bi mu matee dem kër sëriñ maram Bousso moom sëriñ Masamba Kandi Bousso moom sëriñ Bousso be Bousso nag lañ ko jébbaloon ba tax na soxna faati xari Bousso mook sëriñ maram Bousso nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Ahmadou maram Bousso juróom-ñeenteelu doomu sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Bousso bu soo di soxna Mareema Asukan Bousso bi mu matee dem kër sëriñ Mbay Sarata Njaay dëkkoon ci dëkk bii nag di Kolobaan nag lañ ko jébbaloon moom soxna Mareema Aminata Njaay am nañ nag ak njaboot ñu mën caa ràññee soxna Awa Njaay soxna Maymunatu Njaay ñun jébbaloon sëriñ Siidi Jenn ci dëkk bi nag di xay mbayaar ak ku ñuy wax sëriñ Fàllu Njaay keelu doomu sëriñ Ibrahima Buso moom sëriñ Busoobe Buso mooy ko ñu wax soxna Aminta Asukan Buso bi mu matee dem kër Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook soxna Aminta Asukan Buso am nañ nag benn bant waaye bant boobu nag dafa guddul aw fan ginnaaw bu soxna Aminta Asukan Buso bàyyi ko nag ci loxoy Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Njéeme Buso moom sëriñ Mamma Buso moom sëriñ Mbusoobe Buso mook sëriñ Njéeme Buso nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe soxna Sofi Buso soxna Sofi Buso mi bi matee dem kër moom lañ jébbaloon sëriñ Ibrahima Baaxeer Buso ñaareelu doomu soxna Aminta Buso ak sëriñ Njéeme Buso mooy ku ñuy wax soxna Awa Mareema Buso bi mu matee dem kër nag sëriñ Mbàkke Njaay nag bu gede lañ ko jébbaloon ñetteelu doomu soxna Aminta Buso moom sëriñ Ibrahima Buso ak kii di sëriñ Njéeme Buso mooy ku ñuy wax soxna Maam Faati Faty Bousso soxna maam Faty Bousso nag bi matee dem kër sëriñ Ahmadou Bousso moom sëriñ Assane Bousso nag lañ ko jébbaloon njaboot gii nag la soxna Aminta Asukan Bousso am ak sëriñ Njéemi Bousso moom sëriñ Mama Bousso moom sëriñ Boussobé Bousso fukkeelu doom ak benn nag bu sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Boussobé Bousso mooy ku ñuy wax soxna Awa Bousso bi mu matee dem kër sëriñ Modou Awa soxna Mbàkke moom sëriñ Moor Kuna Mbàkke lañ ko jébbaloon mook sëriñ Modou Awa soxna Mbàkke mi am nañ nag ak njaboot ñu mën wax sëriñ Fàllu sëriñ Seexuna Mbàkke bu Gédé ak kañ faye nag sëriñ bu sóobe ñu koy wax sëriñ maam bu sóobe Mbàkke ak kañ ñuy wax soxna Asta Waalo Mbàkke njaboot gi nag la soxna maam Awa Buso moom sëriñ Ibrahima Buso di kam faye wan magam ja nag soxna Awa Buso nag am ak sëriñ Moodu Awa soxna Mbàkke moom sëriñ Moor Kuna Mbàkke soxna Awa Buso moomu sax moom sëriñ Ibrahima Buso moomu moom mujjoon itam nag ci doomu sëriñ Ibrahima Buso yi ci 2017 bii nag la fi bàyyi ko njabootug sëriñ Ibrahima Buso googu nag moom sëriñ bu sóobe njaboot giñ fi bàyyi nag te sëriñ Ibrahima Bousso mu ngi leen di ñaanal nag seen barkeb maam ba nag nekk ci seen kaw mu wéy nag ànd ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba ci atum 1918 sëriñ Touba Seexul Xaadim nag waxoon sëriñ Mbàkke Bousso nag mu dem sanc Gédé ginnaaw bu sëriñ Mbàkke Bousso nag sancee Gédé Seexul Xaadim nag faboon na sëriñ Ibrahima Bousso boole koog magam nag sëriñ Mbàkke Bousso mu ñëw nag nekk Gédé nag ci ron magam nag sëriñ Mbàkke Bousso nekk itam nag ku bëgg sëriñ Mbàkke Bousso ba tax na itam nag tudd doom sax magam jooju nag sëriñ Mbàkke turoo sëriñ Bousso be Bousso sanc na sax ab dëkkitim nag ci wetu nag sëriñ Mbàkke Bousso di dëkk bu ñuy wax nag Jaaj Bousso nekk nag ci wetu daarul Xaddiim Jaaj Bousso gii sax foofu sax la génne àdduna ci atum 1930 sancaatoon na nag beneen dëkk nag bu ñuy wax lumbel lumbel nag fala nag ak njabootam féetee ba tax na itam nag sëtum yi takkoo takku nag ci ak njabootam ñi ngay dundal nag suuf soosu nag du lumbel defar nañ fa nag ay jàkk nag ak i jumaa tabax nañ fa itam nag ay daara ba ñëw kat danañ xam ne kat sëti sëriñ Ibrahima yii kat ñi ngay roy nag seen maam ja mii nag di jaaji busoo dafa mujj gént nag ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ci suuf soosu nag la nekkoon nag di liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul toppitim nag ci ginnaaw magam sëriñ mbàkke busoo ba tax na nag am na ay góor yàlla nag yu mu àndaloon itam nag di liggéey ñu mën caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ moorloo sëriñ ibrahima géey sëriñ ibrahima géey moom sax taalibépp sëriñ ibrahima buso sa woon daa am bis nag ci jàkka jooju nag sëriñ mbàkke buso taxawaloon nag ci gédee noddukat ba nag tarde woon sëriñ ibrahima géey nag noddu ginnaaw bu sëriñ ibrahima géey noddee nag ba noppi noppi sëriñ Mbàkke Buso nag teewlu woon na nodd ga doon na laaj nag kooku nodd nag kan la ñu di ko xamal ne daal Ibrahima Guèye nag la tudd dongab sëriñ Ibrahima Buso la sëriñ Mbàkke Buso nag woolu woon na nag sëriñ Ibrahima Buso di ko xamal ne Ibrahima Guèye moom ma dégg nag mu nodd démb soxla woon naa ko jaraloon na ma dem ba ci réewi araab yi ngir wut sax noddukat nag bu mel noonu sëriñ Ibrahima Buso nag keroog nag dafa santaat suñu boroom santaat seexul xaddim doon xamal nag sëriñ Mbàkke xemmeem lii nag moo tax nag sëriñ Ibrahima Guèye nekkoon nag am noddukat ci jàkkay Gédé ji xissa bii nag sëriñ Cheikh Mbacke di sëtub sëriñ Ibrahima Bousso wax na ne sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag moo ko ko li di wax nag Ibrahima Guèye lu ko indi nag ci ëttub Gédé bi mu nekkin nag ko baax a baax a baax ba tax na nag soo ko gisee daa xam ne nag doomu sëriñ Bousso bi bii nag nuru na waa waajuramam wa moo xam nag ci liggéey ci jàng ak xam nangoo toppatoo nag doomu aadama Abdoul Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag way mag ñuy wax nag baaxuk sëriñ Ibrahima Bousso yéeme nag gu sëriñ Ibrahima Bousso nag yéeme woon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag mi ngi wax ci biir way yi ne kii may way nag soo ko xamul mi ngi tudd nag xalilullaahi di Ibrahima te Ibrahima mii kat mooy xarit nag bi gën nag ci xarit te man mu Mamadou Fadal nag bëgg gi ma bëgg nag sama xarit bi nag di Ibrahima ci diirum nag li may dund mbëggeel gi nag du mbëggeel gu tuuti mbëggeelug cofeel la li ak ragal yàlla te ragal yàlla nag xam ngeen ne nag mooy jikko nag yi gën a mag nag ci jikko yi te képp kuñ naan nitug yàlla nga nag daa fekk nag nga ragal suñu borooma te sëriñ ibrahima mi jikko yi nag bépp doomu aadama nag buy defal nit teraanga yi tim nag mi ngi ci mooma bu fekkee ne nag gan nag dafa gane si nag sëriñ ibrahima busoo njariñ nag lu àndul woon ak lor nag la dëkke woon tax na gan ñi nag dañ ko daa dikkal suba ak ngoon jikko yooyu mu amee woon nag ba gan ñi tim nag daa dikk ci moom suba ngoon bu fekkoon ak gan nag tàggatoo naa ak moom ci suba gi gan sëriñ Ibrahima Bousso nag day mel ne gan googu itam nag da koy doog a gis Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag ba tey mi ngi ñuy wax nag jikkooy sëriñ Ibrahima Bousso bi di wax ne loxom nday joorub sëriñ Ibrahima Bousso lépp loo xam ne nii nag mas na caa tegu da ko daa sotti nag ci ñi nga xam ne nii nag dañuy ñëw nag di ko laaj si te loolu nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mi ngi ñuy wax ne sëriñ Ibrahima Bousso nag diirub jamono nag la ko saxoo woon mu dul faadal Mbacke daal dem na daal ba dañuy misaal tabuk sëriñ Ibrahima Bousso di wax ne daal ni ab nawet mel ni la tabuk sëriñ Ibrahima Bousso nag meloon aw waame daal la ko jàppe woon sëriñ Ibrahima Bousso ku dëgërloo woon la nag ci Ahmed Ahmed nag moom mooy kan mooy sangub sang yi sëriñ Touba Cheikhul Khadim mu ne nag wëkkiirlu googu nag sëriñ Ibrahima Bousso nag wëkkiirlu woon nag ci sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci la amee nag bépp may nag bi mu leen wax nag ci suñu boroom ñu teewlu nag way yi ko jarbaatam way di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke dem def ko nag ci kàllaamay arab jagleel ko nag nijaayam ji di Cheikh Ibrahima Bousso samiyu qalilillahi ma xishtu الجميل تجمل بالتقوى وكل جميلة بها نال في الأزمان كل جميل إذا زار ضيف قال أهلا ومرحبا ولا يشتكي إن بات بعد مقيل وراحته اليمنى تصح لمعطف على رقم أنف الدهر صح مثيل تدلح من سيق المسائق أحمدا فنال من الرحمن كل جليل way yooyu nag la ko jarbaatam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke defal mu nekkin nag ku yaatu nekkitim nag ku bëgg ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul la yaatu googu ak bëgg xaadim rasuul googu nag mu defoon tax na nag mag ñu baree baree bari nag ci yoon wi tudde nañ ko doom ñu mën cee ràññe sëriñ Moodu Sow Ba bokkoon nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul tudde na sëriñ Ibrahima Bousso ko tudde woon sëriñ Ibrahima Mati nag lañ ko doon woowee sëriñ Omar Bousso di rakkam tudde na sëriñ Ibrahima Bousso doom sëriñ Omar Jóob nag bu Mbàkke Bawal bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul la fob na ab taalibeem tudde ko nag Soobe Buso sëriñ Mouhamadou Baaxeer Buso di doomam tudde na ko dooma sëriñ Moodu Buso nekkoon taawub sëriñ Mbàkke Buso di doomam tudde na ko doom sëriñ Mulaay Buso di doomu sëriñ Mbàkke Buso nag di doomam tudde na ko dooma ay doomi boppam itam nag tudde nañ ko doom ay sëti boppam itam nag tudde nañ ko dooma taalibe yi jokku woon ci moom ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul itam nag tudde nañ ko dooma ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci mag ñi ñu tudde nag doomu sëriñ Buso bi Buso bi nag dooma baax googu mu amee woon Fall Mbàkke nag wax ñu ko ci way yim ko way bi Seexul Xaddiim nag ñibbisee nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba Serigne Ibrahima Bousso ci diirub nag 1927 ba ci atum 1930 àjjuma ju jot daana wàcc nag kaamilub alxuraan jagleel ko nag ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul la kaamil boobu nag ba mu fi bàyyi kook léegi njaboot gi mu fi bàyyi nag àjjuma ju jotitim nag danañ ko jàng ngir barkeeloo ko nag ci seen maam ja ci jagleel nag gum ko jagleeloon Seexul Xaddiim mu nekkit nag ku Seexul Xaddiim bàyyi woon xel moom Serigne Ibrahima Bousso jaar na bare bare bare ak seexul xadiima dem na gànnaar fekki seexul xadiim dem na ca yéen jolof fekki seexul xadiim bi seexul xadiim jógee ca yéen jolof nag dem njaareem sëriñ ibrahima bu seytim nag daana dem njaareem di fekki ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiima njaareem googu nag bu fa masaa dem kër sëriñ moor anta mbàkke nag la daa dal bi seexul xadiim nag joxee ndigal sëriñ mbàkke buso mu dem nag gor gedee seexul xadiim nag joxoon na ko ndigal mu nekk nag ci ginnaaw magam sëriñ mbàkke buso nag jajj buso jajj buso nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di daarul xaddiim soxna sim njëkk a dëkkool itam nag seexul xaddiim itam nag moo ko jox ba tax na itam nag moo meññ njabootug sëriñ ibrahima buso gu mag seexul xaddiim itam nag daana liggéey loolu bare bare bari moom sëriñ ibrahima buso seexul xaddiim waxoon na ko ne bis bu ma ñibbisee tuubaa soo ci tegee ñetti at danga ma fekk si nag ci dëkk bu sell boobu nag di tuubaa yaag seex ibrahima faal lamp ak sëriñ ak sa mag nag sëriñ afiya buso ginnaaw bu seexul xaddiim ñibbisee nag ci atu 1927 nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci atum 1930 ba ci juróomi fan itam xarit ya ca la Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag fekk si ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw buñ ca tegee juróomi fan la Serigne Mor Bousso moom maam Mor fekk si ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba bañ ca tegaatee fukki fan ak ñaar moom mii nag di Serigne Ibrahima Bousso moom itam nag ci la fekk si nag ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaadim ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa tegaatee ay fan nag la magam nag sëriñ Afia Bousso fekk leen nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba di dëggal nag waxi ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool mi leen waxoon ne ginnaaw bu ma ñibbee Touba nag ba mu am ñetti at da ma fa fekk si wax jooju ko sëriñ Touba Seexul Xaadim waxoon ba mu jub see mi ngi ko fekkoon nag ci dëkk bii nag di Daaru Muxti mook sëriñ Moor Bousso moom maam Moor Jaara ci soxna Assu Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna si nag ñu jébbaloon ko sëriñ Moor Bousso moom maam Moor Jaara ginnaaw buñ fa àndee nag ñoom ñaar doon seeti nag soxna te juróomi fani tam xarit ya nag ci atum 1930 guddi kero nag ci lañ yëg ne Sey Ibrahima Fall Lamp Baabul mu Muridiina fekk si na nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci dëkk bu sell bi nag di Tuubaa ci wax nag joo xam ne nii nag sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag moo leen ko waxoon bésub keroog nag lañ wax ne duñu fanaan nag daaru muxti ndax kat ab bâtiment bu fondement ba daanoo yàgg-yàgg nag bâtiment ba nag day daanu ginnaaw buñ egsee Tuubaa nag sëriñ Moor Buso moom Mamoor Jaara mi ngi doon xamal ak njabootam di leen wax na nag lu man di leen ko jiiñ nag fa ñu jógee ndax dafa am nag lu ñu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waxoon te dafa mel ne nag dafa jege si ginnaaw buñ ci tegee juróomi fan moom nag ci la fekk si sëriñ Tuubaa ak Seera Faal sëriñ Ibrahima Buso nag dem nag ci dëkk bële nag mu sancoon nag di jàjj Buso ba mu fa defee fukki fan ak ñaar la ko ab feebar nag tëral mu génn àdduna nag ci dëkk boobu nag di jàjj Buso ñu indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa sëriñ Ibrahima Buso nag mi ngi génn àdduna ci bisub ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit ci atum 1349 ci gàddaay gi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 20 juin 1930 vendredi 20 juin 1930 ci dëkk boobu mu sancoon nag féete fa di jàjj buso nekk itam nag ci wetu daarul xaddiima ñu yëgal ko nag magam sëriñ mbàkke buso ak magam nag sëriñ aafiya buso magam sëriñ mbàkke buso nag moo ko taxawu moo ko jullee ci xilaaf ak doomu sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu doon wax nag ma cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu denc ko nag ci armeer yu mag yi moom sëriñ ibrahima am nag ni la tëddee li ko dale ci atum 1930 ba ci atum 1944 taawam ba sëriñ Moodu Xarija Buso mooy nag ki ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Ibrahima Buso ci 1944 la nag ba ci 2006 mooy sëriñ Abdu Xarija Buso ñetteelu xalifa sëriñ Ibrahima Buso ci atum 2006 la nag ba 2008 di sëriñ Moodu Xarija Buso mu ndaw ñeenteelu xalifa sëriñ Ibrahima Buso ci atum 2008 la nag ba 2011 mooy sëriñ Mbàkke Buso di kam faye woon nag magam ja sëriñ Mbàkke Mbàkke Bousso liñ tudde nag doomu sëriñ Ibrahima Bousso nag yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët yi tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëriñ Elaaji Faliilu Bousso moom sëriñ Abdou Xari Bousso moom sëriñ Ibrahima Bousso mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Ibrahima Bousso moo fi toog nag 2011 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag mu yàgg nag ci toogaayu maamam boobu nag di sëriñ Ibrahima Bousso ak mbooleem nag ñi mu séqal sëriñ Ibrahima Bousso moo xam ñuy góor wala ñuy jigéen sëriñ Ibrahima Bousso nag amul nag bis nag buñ koy fàttaliku nag ci li ñu tudde ak màggal